mbokki Leewtoo ñu ngi leen di waat bu baax baax leen jaajëfal di nuyu mboolem ñi ñu suivre ci internet bi mbokk yi tey dañoo ñëwaat ci làmb rek beneen facette Serigne Ndiaye 2 war a jàkkarloo ki nga xam ne moom mooy l'enfant de Kayar démb jëli woon nañ ko gis ngeen lamb foox ak nu mu demee yëpp tey ñu ngi fii ci Ngaraf Medina ci diggu xolu Medina ma ànd ak Mansour suma doom waaye nag ma ñëw euh, daje fekk benn champion soppee glace nuyu nañ la. waaw ñu ngi lay fay champion ñu ngi lay fay. grand mais nañ laa gis. waaw ñu ngi ci ñu ngi ci jàmm ñu ngi ci salaam alhamdulilah. Mhm. waaw. soppay glace da nga bàyyi wala yaa ngi ci ba léegi. non bàyyiwuma nag bàyyiwuma maa ngi ci ba léegi. Mhm. waaw waaw dama am ci lu ma nekk ko waaw bàyyiwuma ba léegi. mais tey ñu ñëw fekk la ci buntu këru Serigne Ndiaye de Coriace. waaw Serigne Ndiaye sama rakk la. Mhm. sama rakk la waaw Serigne Ndiaye de sama rakk waaw. sama rakk la même sans en plus sam papa lañ ko tuddee waaw moom daal man maa ko yar maa ko dugal ci bëre maa tax mu nekk mbër daal waaw. Euh, Ndakaaru lu mu doon def. boobu mu ngi jàng. waaw boobu mu ngi jàng mu jàng fekk euh, sooy xool fu ñu daan entraîné ak moom palanteer bu mu daan jàngee. Hmm. fu daan toogee mooy palanteer foofu la daan toog du ñu seen léegi su ñu gis nag ñuy may bëree affaire yooyu noonu. boobu day nekk di def xam rek direct dafa fort quoi moom day nekk di sëgg di sëggi affaire yooyu quoi di xool action yu may def ak gars ma ba mujjee bi profom da ka mujjee daan dax na ko sëñ Ndiaye mu ne ko am na ko sorte demal mu dem day yàkkamti génn mu wiiri ñëw toog di seetaan ba benn jour nag ma xam na kii mu ngi commencé dem suñ ko ne jàngal mi daw jàngal di dem mbappat affaire yooyu noonu ma gis sama tonton Ogu Diop wax ko léegi bu ma ñëwee wax ko ma ne ko ah Ah, paa mu ma ma ne ko ah sëriñ de moo bëgg mu dugg ci làmb ba mu ne mukk non du bëri affaire yooyu bàyyi ko mu jàng affaire yooyu ma ñëw ne ko ah mu ne waaw ma xam lu ma xam continuer léegi ñuy dem noonu léegi fu ñu dem mbapat rek dafa daan gis da daan topp sama ginnaaw léegi mu dem ba fur ma à rek ma gis na surtout lu ñu ne mbër dugg na ci moom quoi surtout mbër bi ñëw waaw léegi après foofu nag ñuy xeex ak sama papa su ma non du dem ma ne ko non bàyyi ko ndax wërsëgam fi la nekk moo wax ma ne ko wërsëgam fi la nekk bàyyi ko mu dem mu dem ba xam ne mënu ci dara mu ne ma nag bàyyi moom waaye nag dafa am lu ma marqué ci loolu bu ma waxee bàyyi lax moom dafa teg xam naa teg na ma benn sas bu rëy bàyyi naa ma moom boobu noonu noonu dama xool ne ah kii de man maa tax jàngam yàqu kon tey su demee ba mel nii rek oh. ndeysaan kon dafa mel ni euh, Mansour ñoo ko déggandoo kon euh, nu ñu naan borom bitigu mbagg boo xar rek magasin nga ci ngay fekk ci xol ba kon Serigne Ndiaye de mu ngi noonu waaye soppee glace di sunu rakk sunu xarit ñu yàgg di ko seetaan ci ay mbapat dem na Mburuwaay dem na njaan Samel Càngaay Jaak ah, ñëw fii ci euh, euh, camp bii bëri na fa ba tey waaye itam ci biir école bii di école sœurs yi bëri na fi ba tey ñu koy seetaan yàgg na waaye nag ba léegi nee na bawul kon gars mu ngi noonu. Gris 2 Serigne numéro 2 war a def open press am Gris nga ñëw teew. waaw loolu moom kenn du kenn du ne lu tax quoi parce que Serigne Ndiaye moom c'est mon ami waaw c'est mon jumeau ñu bokk fu ñuy jàngee bëre ñu suma xarit jëm si bis bu am importance pour moom di ko ñaanal yàlla defal ko ndam. waaye Mansour dafa mel ni euh, open press bi xoolal xoolal waa mais grand kii kan la. ah nijaayam la papam la. Hmm. waaw foofu laa mën papam la moom waaw. papam la nijaayam la waaw moo bari ay ruq. Gris 2 lii kii la de ah open press la waaye dafa mel ni jour combat. waaw benn la rek kuy dem moom ku ñëpp di xaar moom dangay ngay waaj rek. Hmm. waaw mbër moom booy génn fi ngay booy dem ci mbooloo da war a waaj te lii nii muy def loolu mooy devoir bi. gaynde ndeysaan xale yaa ngi noonu Forza numéro 2 ñëw na numéro 1 ñëw Gris 2 ñëw a dafa mel ni kenn desul waaye mais dafa am waa kii Mansour waa kii moom ñu xool ba xam ah ah sànni bet lew naag moom yootu na tànk ba sànni na ko ca ah mais bien open press moom beneen affaire la ah gis nga yootu na ko mu jël ah la ilaha illallah attention attention Serigne Ndiaye mii nag dafa mel ni déggal waykat bi la muy way waaw doomu Moussa Diouf moo koy aw Mansour kii Moussa Diouf a ko jur xale bi bu wéyee la defoon ba jóg mbokkum yaay tëri na ko yëkkati ko aw sampaat maa ngi leen di fay bu baax mais Forza dafa mel ni affaire bi moom saful sax li nga xam ne moom mooy open press mais lamb la gën a saf. waaw loolu la loolu mooy yoon parce que bu mu nekkoon démb ñu am fu ñu ko bëgg a yóbbuwaat fu mu toll tey kon lépp lu ñuy def dañ ko war a si fulla ak fayda ak waaw loolu la. Forza man maa ngi nii di waajal pare naa gars yi laay déglu mbër yi nag dañ takk la rek saw geeg wiiri wiiri yi matu ko ñoom ñëpp pare naa pour maa doon baax na pare naa ñoom laay déglu. donc euh, damay juste contenté wu ci wax ci booy bi quoi parce que dafa nekk booy boo xamante ne man booy bu man naw la booy bu ma fonk la booy bu ma respecté la parce que tey grand dëgg la xaalis neex na mais ku la yëg rek teg la problème te booy bi daf ñuy yëg ba ñu yëg ko ñun donc mënuñu mënuñu lu dul delloo ko lii yaa ngi may dégg Koréas góor la Koréas góor la Koréas góor la soo gisee mu wax la ko man lagakat laa du ma waxantu booy bi góor la te billaahi bu dee yàlla xol lay fay yàlla na suñu borom fayee xolam si yonent bi sant suma ñaari waajur di sant suma baba di sant suma yaay bu baax di sant suma waa Ikiri waa Ikiri Fass di suma bab suma euh, baba ak sumay entraîneur ku su mel ni Père Gueye Camara Père Ibrahima Mbaye Père Socé <coughs> ak Père Seck di gërëm suma coach moom itam moo bàyyi yëppam ñëw jàpp si combat bi muy coach Alouche ak Grec maa ngi baax di leen gërëm di gërëm suma mbokku mbër yi bi teew yëpp waa Ikiri Fass yëpp su ma waxee suma grand Gris Bordeaux ba yegg suuf maa ngi sant di leen gërëm waaw non ñun balaa ñuy àgg foofu da nga da war a pare combat dimanche gis nañ la sànq ba léegi yaa ngi tëb nii nii mais ba lii bu demee après dimanche noonu lay demee. man ku ma xam. bàyyi ma bàyyi ma ku ma xam. waaw ba dara damay seet waa Medina yi ba pare. waa Medina gi ma juddoo. yaroo fi màggee fi su may waajal waa golf bu baax suma waa dëkk waa Ndiaphate séeréer Ndiaphate Escale. Ndaafat Bayrut Ndaafat Soose di sant waa Bawol bu baax di sant waa Guddeem di sant waa Wanaar di sant capitaine Louga di sant kilifa diine yi may ñaanal yëpp maa ngi sant ñëpp di sant waa Kaano ak waa Casamance sant ñëpp ak waa Gambe di ñaanal suma papa nag suma maam Youssou Diène yàlla xaaral ko àjjana ak suma copain nga xam te nii mooy Ousmane yàlla xaaral ko àjjana bu baax dañoo am dëj nag ñu ngi jégalu bu baax mais li bokk suñu moo tax mais bëgg woon ko di ñaan kii ko ne lakk ko suñu ginnaaw rek mooy abay ne prix incha ngeen baal ñu Serigne Ndiaye numéro 2 Serigne Ndiaye ngay bore koo xam ne xamante ngeen bu baax am foo jot a jaar ndax noonu lay demee wala day am différence. un grand différence dina ko am si kàttanu yàlla bu baax am. esaan toll nii damay sant yàlla bu baax dama pare su may mbokk pare su may àndandoo pare. su ma esaan lay pare. seen ji li neex man maa koy def su ma bët nekkul si moom laa ko teg dafa bokk suma yoon moo war ko effacé kon ni suma yoon si kàttanu yàlla. Serigne Ndiaye Gueye jërëjëf l'enfant chéri de. la Médina wala yaakaaru Fass ñu bëri am ñu ne dañoo teg seen bët ci kaw ne tey jii yaakaari Fass dañ koo teg ci sa kaw. Gris 2 ñëw Forza ne ci sa wet seen kumpa soppey galas ak ñeneen ñi ma mënta lim ana loolu lan la mën a def ci yow nga organiser li nga xam ne mooy open press ñëpp fees fi dell te lamb ji demagul. waaw mais loolu yëpp dañuy wax macha allah rek sant yàlla bu baax. Fass man kese nekk moo fi yaakaar suma grand frère Gris 2 mu ngi nii Pape Ndoye bëgg de moo di ko masaw bu baax di ko ñaanal yàlla loolu gëj combat bi dañee ci ay coono yu métti mais loolu ak làmb ñoo ànd mais si kàttanu yàlla ak mbaaxam je vais tout réparer ay ndaanaan yàgg na faa génn dañoo baax rek di wax mais man kese nekk moom espoir Fass dafa nekk si espoir amul benn si écrit mais dañuy ñaan yàlla dafa ñu cat ba yaakaar bi gars am si waaw mais Serigne Ndiaye li nga wax yëpp dëgg la ñu mais tey bu ma doon laaj ne la combat bi si xeex lay mujj wala si bëre loo may tontu. non lamb ji nekkuñu mbapat nekkuñu mbapat dañoo jël combat contrat signé dagg licence bëri dóor dagg licence simple licence bëri dóor laay bëri fu mu nekk ni bëri moo bëri simple te booy maintenant lamb ji si kàttanu yàlla ak mbaaxam moom dina dugg si boppam ne carrément kat Moussa bu mu bëri loolu ak Moussa bi du doon benn si kàttanu yàlla. waaw mais tey bu Serigne yow lan mooy changement bi loo may wa li changement bu saa démb ak bu tey changement bi lan la. waa ñun ay xale lañ ñun hmm, alhamdulilah rabbil ay xale lañ dañuy liggéey saa su ne amuñu tànku ginnaaw alhamdulilah rabbil alamin làmb ji dañ ko pare su may mbokk pare ko waa Agri Face pare ko su may dëkkandoo pare ko te moom balaa moo comprendre le 22 incha allah ñu daagu nànk dugg si stade bii ba heure yi jot si lay door a comprendre ne daf na ngandi erreur. waa Serigne kontaan nañ parce que fi mu nekk nii yor nga entraînement ku la gis xam ne yor nga entraînement kon tey mën nañu wax ne boo taxee Libidor da koy def doom rek romb tey ku la wax ne da nga koy def doom est-ce que ne waaw. da koy sirik. waaye déggoo ma ne la ñun dañoo pare niñ daan bëree lu ko raw la ñuy dañoo pare fépp moom nag da ngay sant bu baax di ko gërëm di ko nuyu di ko ñaanal jàmm ba le 22 si kàttanu yàlla yàlla ñu ndam si kawam loolu la yàlla bu baax. jërëjëf Serigne dafa mel ni yóbbante sa adversaire déggoo ko nee na wax jey bëri waaye bu ñu tëjee barrière yi doo dóor doo bëri moom na xam ne gàtt gàtt ma ngeen ma cinq ans man xale bu ndaw laa gàtt gàtt esen gobran buñ dagoon si alal tey billaay walaay bu tourné wul du ma tourné man xale bu ndaw laa mu ah, nekkul moom may ragaloo si làmb moom taxul may liggéey ndax dëgg may la dafa nekk suma yoon dafa jaar suma yoon dama koy effacé na suma yoon ci kàttanu yàlla mais nekkul moom moom mu loolu am na sëriñ Ndiaye xam nga làmbi dóor bokkul ak làmbi simple ñu xam sa adversaire ci dóor nit ba mu doy fii ci stadium bi xam nañ ci yow nag lu bari waaye tey xëy na lañu mën a wax mooy li nga xam ne mooy agressivité am agressé adversaire am ba terrassé ko ndax yow pare nga ci dóor bi parce que sa adversaire dóorkat la gis nañ fa mu jaar ak ay nit yow ñu xam ci yow euphorie bi nga xam ne wala confiance bi j'attaque je cogne et je ñu xam ko ci yow nga koy def def ko ci essai adversaire tey nga ubbi saison bi ci ubbi boo xam ne macha allah la ñuy wax laf cat bismillahi rahmaani rahim ñu ne lii du simple dóor la. déggoo ma ne la yow mel ni déggoo ma de dama ne la ma Medina laa juddoo na laa yoroo Medina laa màggee su ma waajur fii lañ bu fekkee xeex rek xeex fii dañuy am ñoom dugg économie xeex ba gannaaw suba. man booy Medina laa à 300 pour cent amul lu may dellu ginnaaw ak lu may dellu kanam yaa may dégg. arbitre li mu doon li ma koy ñaan mooy na taxaw mooy ma attaqué ko koñe ko ko ci kàttanu yàlla. du nuyu nag waa Kayar bu baax waa Kayar maa ngi nuyu waa cinquante waa Mboro su mbab ñaas ka yàlla nga yàlla xaar bépp sa mbab sa mbab bépp may képp may ñaanal ku nekk Kayar maa ngi lay sant ba jël gërëm waa Mboro tund gendeer bi ci clip yi may ñaanal maa ngi lay sant ba jël gërëm waa Pout maa ngi sant ñëpp di leen gërëm non nii lañ leen di tàggaloo ñu ànd ak Fabrice Fabrice Alouche Alouche et toi comment tu t'appelles moi c'est Biram Gningue Leewtoo Et Babacar, il est où oui. Il est où Babacar Mais toi, t'es plus beau que lui. T'es plus beau. <laughs> en il va l'entendre. Maintenant, ah, oui. Euh, accompagner votre lutteur, Serindiaï 2. Oui, c'est pas mon lutteur, c'est le lutteur de Abdou et Tafa Gay de l'écurie Face. C'est un garçon que j'ai rencontré il y a 3 ans. Je l'avais entraîné pendant un mois. Je suis pas venu au Sénégal pendant 2 ans et demi. Par le passé, j'avais entraîné Malik Nyang. que j'ai fait, à qui j'ai fait gagner le CLAF. J'ai travaillé avec Cathy Diop. Ensuite, je me suis occupé de Meussen pour son combat contre Gris Bordeaux. Jordan contre son combat contre Força. Et j'ai accompagné pas mal de lutteurs. Serena Ndiaye, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc là, je suis venu euh, un mois avant son combat pour lui rapporter pas que la boxe, préparation mentale, récupération, alimentation et boxe adaptée à la lutte. En, avec Tafa Gay et Joseph Diouf, qui s'occupe de la préparation physique c'est important parce que c'est un grand monsieur de la boxe au Sénégal. mbokk ñu ngi noonu kii mooy Fabrice Alouche jaar na fi ak mbër yu bëri tey mu ngi ak Serigne Ndiaye de Coriace ñu koy ñaanal jàmm yàlla gën yokk fanam mu gudd ak wér maintenant on vous dit au revoir ba beneen yoon. jàmm salaam. <laughs>